noo ngi leen di siyaare di leen sargal bu baax ci itte ju ji nga xam ne seti sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan dañu ko taxawal bis ni tey yéen ànd ñoom bokk koog ñoom ci pas-pas bokk koog ñoom ci yéene ju rafet kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di ñaan sun borom mi nga xam ne lépp ci loxoom la ne mboolem ku fi teew ak ku yéenee teew yépp suñu borom boole nu fajal nu suñu aajo saahiran wa baatinan ci barkab sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan mii nga xam ne moom lañu taxawalal bis bi nuy wax nag ci kàddu soxna Ndey Siise ah, mi nga xam ne sëñ ah, mi nga xam ne mboolem sëti sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan yi nga xam ne ñoo taxawal bis bi ñoo jël bis bi tudde ko way juróom bu baax wu tedd wa di soxna Yaasin Diop di bintu sëñ Mbàkke Diop Kalsaan soxna ndey nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax tàmbalee ko ci seen kilifa yéen ñëpp muy sëñ Cheikh Ibra Diop mi nga mooy xalifa sëñ Ibrahima Diop Masxar teg ca sëñ Cheikh Bayla mi nga xay mooy xalifa sëñ Mbàkke Diop Kalsaan teg ca rakkam ji sëñ bàcc jóob ak mboolem ñi bokkal sëñ Mbàkke Diop Kalsaan ñëpp di ci tegit bu baax nag ku baax ku yaru ku am xam-xam ca ami teggin muy sëñ Abdul Wahab mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Cheikh Diop Kalsaan nee na ñoom ñëpp mi ngi leen sant bu baax ndax cër bii ngeen jox way juróom ba dey xolam sedd na ci ñi mu bokkal ñëpp seen xol sedd na ci waaye nag jox ngeen ko ku ko mat a jox ndax soxna Diallo ku ko xam xam ne gaynde gu jigéen la ndax moo jëkk a taxawalal sëñ Mbacke Diop Kalsaan fii di ko màggalal ba ñëpp fekk ko ci te sallallahu alayhi wa sallam nee na ku sos lu baax képp ku la ca roy jot sa tuyaaba te du yàq dara ci tuyaabaam la ca topp mooy moom mii di soxna ndey euh, euh, sëñ Mbacke ñang wax na ko léegi. bi way juróom bu baaxoo fatoo dafa daal di taxawal poroxaan bi màggal sëñ Mbacke Diop maam gi ñëwee ca ba way juróom bu jigéen daa ko def da koo taxawal kon nag ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal bu baax fuy ndeyam ja eggoon ci sëñ Mbacke Diop ak ci mbaax ak ci daraja ak ci wërsëg soxna ndey yàlla na ko weesu di wii ak yaag mboolem say xarit ak say wëlëre soxna Ndeye daal naa sant na mboolem sëtti sëñ Mbacke Diop kasaan yi kaca mag ba ca këcc doon gone jarul muy tudd aw tur waaye boo waxee loolu ëmb na lépp ndax lii ngeen ko defal sedd na xolam lool sedd na xolu képp koo xam ne sopp nga sëñ Mbacke Diop wala ngay dëkkandoo kon nag nee na daal eh, baax moom du weesu baax def ngeen lu baax mi ngi leen di booleeg seen maam sëñ Mbacke Diop Kalsaan mu fay leen. léegi nag waxtu wi dafa gàtt waaye dam loolu ñuy wax traduire dama koo bëgg a def ci waxtaanu sëñ Cheikh loolu dama ne sëñ diw mooy sama waajur doyu de sëñ diw mooy sama baay doyu de sëñ diw la ñuy màggalal doyu de xam nga lan moo doy da ngay fexe ba nii ko sëñ Cheikh loolu waxee woon jikko yam daa doxe nga topp ko jam daa def nga di ko jëf nam daa waxe nga di ko wax fexe ba lu wax ki nga suul ko loolu moo di njureel ndax sëñ Fallu nee na doomi diw ràkkal képp la doomi diw ràkkal rek la doon diwoo ko gën a wóor ndax ràkkal kilo bi du weesu cent franc te boo demee ci euh, dawlin euh, walaat bi mille franc la kon na nga xam ne ni ko sëñ Fallu tojee nañ kon ni dégge booy màggalal waa ju baax da nga koy roy ci ay jikkoom génn ne ñëpp xam ne ci seen jëf ak seen wax ak seen toogaay ak seen doxan ne ñëpp xam ne sëtu sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan ngeen na ngeen fonk alxuraan jàng alxuraan ba mokkal ko na ngeen fonk xam-xam ndax sëñ Ibrahima Jóob Masar rek xam-xam fi moom la tàmbalee fi la yeme ndax mboole diiwaan bi mu bind coomo mënu koo firi ma ne aw as njàng mënu koo firi laa wax kon yéen ñee xaye dañoo wax ne yéen di ay sëtam na ngeen fexe fa mu tegoon tànkam ngeen teg fa yéen ñi di ay taalibeem roy leen ci El Hadj Omar Tall leen ci sëñ Madiou duy roy leen ci El Hadj Makhtar Mbaye roy ci sëñ Baye Serigne Barom ndax ñooñu dañoo toppan sëñ Mbacke Diop di sàkku ngërëmam ba suñu borom tawar taala jox leen ko yéen ñi xay yéen nekk ci daara yi di tërbiyu na ngeen xam ne tërbiye sëñ Touba moo ko fi feeñal ca defar ji ko dong la ku jaar ci tërbiye doo rëy doo nay doo diis doo xamati doo soxor doo iñaan kon loolu laa ko doon wube noo ngi leen di siyaare bu baax di leen balu àq di ñaan sunu borom kuréel bi gudd gudd fan ngeen bokk ci bi fi ëpp wërsëg na ngeen ci bokk bi fi ëpp taalibe na ngeen ci bokk ci barke Seexul Xadim ci barke sëñ Mbàkke Jóob ko salaam wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu sëriñ Seex Bay laa Jóob mi nga xam ne moo nekk xalifa Serigne Mbacke Diop Kalsane nekk fii ci biir kër gi di ko nuyu di ko siyaare di nuyu doomam Cheikh Abdoul Wahab Diop moom Serigne Cheikh Diop Kalsane di ab xalifaam nekk fii ci biir kër gi ñu ngi leen nuyu yéen ñoom ñëpp di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay bu mat sëkk sëkk sëkk di sant sëti Serigne Mbacke Diop Kalsane yëpp. di nuyu al oustaz Cheikh ci waxtaan wu rëy wi nga xam ne def na ko fii xamal ñu kan mooy Serigne Mbacke Diop Kalsane xam nañ ci lu baree baree baree bare waaye sëñ Mbacke Diop Kalsane moom lépp lu ñu ci waay wax rek wax dëgg yàlla moom ñun dañ koy sant di ko gërëm di ko xamal ne sëñ Mbacke Diop Kalsane moom dañoo jàngal yar suñuy baay ñun xamuñu lenn xamuñu fenn moom kese la ñu xam man nag damaa seetlu fii ma toog nii képp ci këram gii ñu nekk nii nit. soo ko dee seetlu dangay xool la mu am nga xool na koy doxalee parce que kër gi damaa toog fii gis kër gi fi mu gën a baaxee àngal bi jëm penku sës ci tëli bi mu dagg ko jox ko suñ borom muy néegub yàlla bi fii ñu nekk nii mu jox ko taalibe yi nga xam ne tey su ko fi deful woon ñi ngi baare tëli bi di lor doomu aadama yi mu dagg fii ñu fiy jaamu yàlla di fi jàng ay xasaayid Seex Ahmadul Bamba kër gi tey am na ñooñ buñ ko amoon ak nii mu placé fii mu dagg jox euh, jox jox taalibe yi ak fii mu dagg jox suñu borom daan fa xalaat la leneen kon ña nga fay wuti ay magasin wala ñu fay di baaje wala ñu fay def wut lu ñu lu ñu wuti alal waaye moom de loolu defu ko xool fa gën a baax ci kër gi nga dagg fa jox ko suñu borom la ca des nga jox ko taalibe yi ñu ci jaamu seen borom di ci jàng seen xasaayit loolu wax de yàlla ku ko def xam nga ne yow loo wax suñu borom ñor na la sëñ Mbacke Diop Karsane gars yi damaa dégg fan yi ñuy wax naan kennal Serigne Touba kennal Serigne Touba ba mel na léegi la xew mais moom ba mu ko tàmbalee dafa yàgg moom sëñ Mbacke Diop sooy wax ci sëñ Touba ak noo mën a mel yaay waayam waaye loo ko weefal sëñ Touba ak noo mën a mel ak dara joo am bàyyi nal la ak àllaaxira moom amul amul tolérance ci sëñ Touba Mbacke waaw rek sëñ Touba waaw rek nga ci mën na sañ wax waaye laneen loo ci wax lu dul waaw wala mooma bàyyi na la. sëñ Touba ne lu mu wax neel waaw rek moom nga am am nga ko ba mat sëkk moom lool la xam kooku moom ba mu kenn leen sëñ Touba dafa yàgg xoolal njabootam gu góor gi doom yu am yépp sëñ Touba Mbàkke la leen tudde wala ay njabootam la leen tudde amul kenn ko nga xam ne tuddewu la ku sant Mbàkke ci doom yu góor yi kooku moo kenn sëriñ Touba bu yàgg yàgg yàgg yàgg lii di a xew gis nga jàkka ji 1945 la ko fi def boobaag léegi am na 73 ans jàkkaa ngi door a xew léegi. jàkka ji juróom ñaar fukki at ak ñett am na ko fi moo tax sëñ Cheikh Diop dégg naa waxtaan waxee ne ma ne sëñ Mbacke joob li mu nekkee woon bi képp ku fi ñëw da nga koy encouragé rek waaye ñëw naa ne naa ne li nga nekkoon changé leen ko defaat lii moom fekku ko ci. xoola gàmm ba nga ko tàmbalee léegi suñu bàyyi sax dañoo judd fekk ko muy gàmm sëñ Saliou ñëw santaane gàmm moom fekk na ko ci bu yàgg yàgg yàgg sëñ Sidi Mokhtar ñëw santaane jàkka yi jàkka ji kañ fi 73 ans am na ko fi moom. fekkoon na ko ci bu yàgg a yàgg sëñ Sidi Moxtaar ne man da jàkk yi sax am na waaye damay dem ci ay jàkka dafa fekk ay ñaari ak ñetti nit di jàkk loolu dalu ko waxtu yëpp lañ fiy julli te day fees del kooku moom wax dëgg yàlla bi mu bi bi ñu xàmmee ci moom dañ koy lépp lu mu nekk dañuy ñëw rek encouragé ko yokk ko waaye duñ ko ne soppil aw toogin wala soppil aw doxalin loolu moom ku ko xam kër gi xam ne kër gi noonu lay doxee léegi nag sëñ si Cheikh loo li nga fi wax wax dëgg yàlla ñun seral nga suñu xol bi lool ñun ku ñuy wax sëñ Mbacke Diop rek suñ la lépp lu ñu man su lépp loo bëgg suñ la ko mënoon fii lañ la koy defalee parce que sëñ Mbacke mu amuñu sago fii man boo gisee ba jël kàddu gi man aw ma xam-xam aw ma at yu bari aw ma alal waaye que sëñ Mbacke Diop gii lépp lu ma fi waaye di wax na nga fexe ba lu ma man parce que moom fii moom aw ma fi aw ma fi ngànt moom lu ma fi waay ne kaay defal ma ko rek nay nga dimbali muy xool ba lu ma man la parce que su ma ko mënul it danaa ko jéem a def ndax fii moom du ma fi ngant ngant du ma ko fi joxe waaw léegi nag kàddu gi li tax ma jël ko soxna ndey Cissé mii nga xam ne dañoo tuddee cant gi way juram muy soxna Yaasin Diop waaw moo moom moo ma sàkku ay kàddu ci man pour ma santal ko mbooloo mi ginnaaw loolu nag bala maa jàll ci lool damay ñaanal Serigne Cheikh Diop Kalsaan suñ borom fa mu nekk yokk ay leeram wane la ko ak way juróom sëriñ Mbacke Diop Karsane damaa toog ak menn mag mu di ma waxtaan ma euh, sëñ Mbacke Diop Karsane ni mu jube sëñ Mbacke Diop Karsane ji ni mu jube ni ko sëriñ Cheikh Diop Karsane doon sëñ Mbacke Diop Karsane baat boobu ni mu jube noonu la baatu sëriñ Cheikh Diop Karsane jube nee noonu la ko doon ne nee noonu baat noonu mu ko doon ci baat boobu nag lépp boobu noonu la mel. ñuy waxtaan su fa yëgul dara sëñ Bayla Diop mi ne tëll boot loxo yi. mu giñ mu giñ mag ma giñ man na maa wax turuwaay jur ma koy wax mu giñ ne gillaahi kii ma séen ak sëñ Mbàkke Diop amul dara lu leen wuutale waa benn la waaw benn la ki nga xam ne sëñ euh, kilifa mooy mooy mooy jëf jëfe noonu ku ko wuutu jël léppam ku ku wuuti kilifa jël léppam boo jaaree ca yoon wa te ñii dañoo jaar ci yoon wa maa ngi leen sant leen gërëm léegi nag sëriñ ngañ lay mi nga xam ne mooy sëriñu soxna Ndey Siise mii dafa ma woo ne ma dañoo tuddee cantuk sëriñ Mbacke Diop Karsangi soxna Yacine Diop borom pësteef ba ne mu bëgg ma jottal ko ay kàddu mbooloo mi ma ne ko soxna sëñ ngañ de li nga wax rëy na lool te am na solo waaye nag lu tax nga di ma ko santloo te waxoo ko gaa yi nga xam ne ñoo ma gën a mën a wax gën maa bari xam-xam mu ne ma damaa xam ne ab taalibe nga ca kër ga ma ne ko kon nag jël nangu naa ko soo ma waxoon tey xam nga. wala am nga wala man nga du ma ca jéem waaye comme nee nga ma ab taaliba nga ca kër ga loolu moo wax dëgg yàlla moom du ma ko delloo ginnaaw moom dama koy ko di sant nee na mi ngi sant mbooloo mi di leen bayul kenn tàmbale ko ci kilifa yi ak xale yi ak sët yi yéen ñëpp sëriñ ngañ lay nee mi ngi leen di sant bu baax a baax ndax soxna Yaasin daa meloon ci moom no nga xam ne lépp lu ko waay defal mel na ne moom nga ko defal nee na tey jii su fekkoon ne di siim da leen a mën a da daa da am lu ko gënal day am alal fay leen parce que jëf ji ngeen jëf ji ngeen ngeen ko jëfal moom kon da leen da leen di fay waaye comme mënu ko mi ngi leen di booleeg Serigne Mbacke Diop Kalsaan ak Serigne Cheikh Diop Kalsaan ak Serigne Bayla Diop mii fi nekk ak Serigne Abdou Wahab Diop Kalsaan mu ñaan ñooñu ñaanal ko yàlla. ñaanal ko yonante bi ñaanal ko Serigne Touba mu fayal leen jëf ji ngeen jëf ne leen fay bu baax soxna Ndeye Cissé nee na mi ngi sant mbooloo mi di sant góor ñi di sant jigéen ñi di sant mag ñi di sant ndaw ñi ndax wax di yàlla soxna Yaasin lépp ba mu fi bàyyi ko bare xel xelum kenn jógu ci xelum kenn mënu cee jóg parce que jëfam la koo xam ne soo daa bëgg waxtaanam neex laalal ko ci sëñ Mbacke Diop Kalsane rek mu ko defee moom xool